gis nañu ku génnaat euh, ci kër gi ma ngay sotti sanqal ci suuf ci leket daal la ko def di sotti poussière baa ngi jog waaye teewul mi ngi sotti daal ba tey ci tegtal yi la bokk wala déet a ah, Papa Sow ma ngay waaj a génn papa mu ngi waaj a génn ci këram waajaa ngi sotti sànqal daal oto bi moom sotti na ko ba mu fees Sow moom ngeen di seen noonu le muy génn mbër bi nga xam ne ñu ngi koy xaar boobu ba léegi kon nag euh, Papa Sow mi ngi noonu euh, gis nañu papaam euh, ci ginnaaw mi ngi noonu Papa Sow moo nekk noonu di dem ci arène nationale ngir rek combat bi nga xam ne moo dox ci digganteem ak Siteu mu jàmm gën mbër bi nga xam ne nag boobu ba léegi ñu ngi koy xaar ay bés ay waxtu rek moo des ngir Papa Sow dem euh, ci combat bi dox euh, ci digganteem ak euh, Siteu gis nga ko Junior sax ma ngay laaj lana def ci kanam gi en tout xamuñ ndax huile la wala këriñ waaye daal ñuul na ma ngay sottee ko gàllaajam ngi noonu di dem dégg ko ambiance bi waa jege naa leen butéel yi daal bari na ak ni ñu ko waxee sedd bi Junior la ci combat Junior nangul wax papa ngoog di sotteeku di waajal combat bam mbokkam ak jegeñaaleem gis nañu ne papaam génn na léegi waaye pa bi nga xam ne moo taxawoon it di sotti gàllaaj ma ngay dem layu ba it gis nañ ci tàngal menthe fraîche ak li nga xam ni ah, moom mooy mbiskit ambiance baa ngi noonu la fii ci unité 17. amee gis nañu papa ba tey mi ngi sotteekoo ay butéel. en tout cas bët yi moom ñuul na lan la def ci bët yi ba mu ñuul tusngal la wala këriñ la wala huile la ma nga seex soccoom daal ànd ak ambiance bi nga xam ne moo am file ci parcelle unité 19 jël nag ay mosoom def ci baatam tooy na xepp daal dernier consigne yi moo nekk noonu laata muy dem jàkkaarloo ak Siteu butéel bu ne ñu daal di ko koy sotti ma nga nag ci buntu këram gis nañ ko bégginam la yor daal def ko gauche def droite def ci digg bi defaat ko ci biir kër gi gaa yi daal di jubilé ne ndam la ñu bëgg nee na ñi ngi dem waaye ñu ngi ñëw yëf yi jeex na maa meen sax dañuy jubilé ñëpp a ngi ci biir gis nañu waa këram ne ndeysaan dañ naan booy bëri gi sa doom day rek euh, euh, dafa nekk koo dafa jege sa xol mais baa ngi noonu ci ginnaaw ñu ànd ak moom yaayam di ko gunge papaam duggoon na léegi njëganaale mag ñi ma bokkal écrit muy jàmbaar Wrestling Academy am na nag loo xam ma ngi koy yëy lépp bokk ci gàllaaj ci nga xam ne mbër yi dañu koy jëfandikoo bu ñuy dem dernier consigne moo nekk noonu gis nañu ñaari ñoo xam ne nag dañoo mel ni ay seex ñoo nuree la jàllaa bi ñoom sax lañ tegoon papa Sow waaye papa ngi ci ginnaaw di waajal dugg ci oto bi mbokkam ak ah, xaritam ah, jege ñaaleem fan si yeeg xale yi jigéen mag ndaw parcelle tey ñu ngi koy waxee foo sànni mbaat mu tàkk Papa Sow ngi noonu sotti nañ koo sotti ba mu tooy xepp gars yi nag nee nañu combat bi la jeex na ñi ngi dem waaye tam ñi ngi ñëw te bu ñu ñëwee ndam la ñuy indaale muy ay kàddu yoo xam ne jóge na ci ñi ànd ak moom Papa Sow nekkoon ca écurie de Fass euh, doon fa def lu solo laata rek mu fay jóge ñëw créer leneen loo xam ne moom mooy jàmbaar Wesley Academy di équipe bu bees ne fii ci parcelle bi nag ginnaaw mu toog diir bu yàgg ko kombaawam ak Baye Mbandione tey mu ñëwaat ci arène bi di jàkkaarloo ak Siteu Tarkinda bu jàmba gën ambiance baa ngi noonu waaw tàng na papa dugg na ci oto bi ma ngay dem direction stade ñu toppaleen ko rek ba foofu

convoi bi nga xamante ne mooy ànd ak papa dem esat papa ngi soo ngi nii 4 bu bleu bi nga xamante ni moo nekk suñu kanam mu def 4 bi Isa Franc moo sol capuchon bu bi noonu toog à tout cas nekk làmb joo xamante ni làmb ju neex lay doon. neex a neex a neex a neex mais nag euh, Abdou Fall teg na combat bi depuis deux ans mbas mi jaar fii muy muñ di muñ ba tey gi yàlla jeexal na ko muy ñaan ñu ñaan rek mu jeex si jàmm ak salaam ndax nekk na loo xamante ni fu ñu toll nii gis na combat mi gisee neex a neex a neex a neex mais nag euh, Abdou Fall teg na combat bi depuis deux ans mbas mi jaar fii muy muñ di muñ ba tey ji yàlla jeexal na ko muy ñaan ñu ñaan rek mu jeex si jàmm ak salaam ndax nekk na loo xamante ni